safoo di seetaan Dakar Midi point net ñu ngi leen di dalal ak jàmm seen émission jotaay politique jotaay politique tey muy dalal beneen gan gu am solo muy Badara Gadiaga nekk responsable réew mi fii si Dakar nekk tamit responsable jeunesse euh, réewis Badara Gadiaga ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay euh, di nuyu mbokk internautes yi nga xamante ni ñoom ñëpp ñu ngi seetaan Dakar Midi di ko seetaan fépp fu ñu nekk ci àdduna bi. Badara Gaye la ñu jóge si benn si benn événement buñ ñu ko mënee waxee noonu événement bu rëy mu nekkoon le 19 avril Sénégal ñu doon voté benn projet de loi boo xam ne opposition bi bi xam nga si nga bokk ñu ngi si doon andi ay coow yu bëri ban jàngat nga am si loolu gannaaw ba ko assemblée nationale adopté. waaw jàngat bi ma am ci loi bi nga xamante ni euh, le président Macky Sall imposé na ko Sénégal bëgg def forcing mooy li ñëpp jàngat mooy gàkkal. image ak deru Sénégal bëgg jële Sénégal ci démocratie bu rafet bi mu amoon bëgg ko yóbbu ci dictature ndax bu fekkee da nga imposer ñëw ni da ngay teg loi ba nga koy teg yow kilifa diine yi nga xamante ni ñun Sénégal dafa am ay kënu yu mu taxawee ñoo xam ne ñooy ay kilifa yoo xam ne dañ leen jox cër ñu gis xalif généraux yi yëpp ñaan ko ñu gis ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk ci jàngu bi aussi ñu bind même ñaan ko ñu gis ñi bokk ci société civile bi échanger ak moom ni ko na sursoir ci loi bi ñu gis ñi mu bokkal Sénégal muy opposition wu Sénégal nga xam ne aussi dañ fi am cër ni ko lii teguwul ci yoon bu ko def mu def forcing génne police am génne armée wam euh, bëmkërise Sénégal ni xale yi jarul ngeen di jàngi moom mu daw maanaam luñ tuddee ci olof sàqi génn réew mi dem bàyyi ci Sénégal mu nekk ci état de siège bus yi dawuñu xale yi jàngiwuñu nit ñi nekk di xeex suba ak ngoon majorité mécanique bu nga xamante ni jëf ju bon ak ju ñaaw jëpp ju muy def ñoo ko koy jàllaleel ñu dem ba ci pencum ndaw réew mi fi ñu leen xamante ni fa la ñu war a waxtaane lépp lu soxal askan wi ñu taxaw fa ni vote sans débat def forcing pour voter loi parenage loolu gàcce laa ci am en tant que sénégalais di gis sama réew mu am recul démocratique. mais est-ce que tamit gannaaw jàngatu oppos jàngatu opposant bi parce que ni nga ko waxee da nga ko gisee si wàllu benn euh, gis-gisu opposant est-ce que tamit parrainage boo ko xoolee woon si wàllu jëm si candidature yi nekkul loo xam ni euh, politique yi waaye politique yi dañ ko war a rafetlu déjà. xam nga politique parti politique d'abord parenage amoon na pour def taarix bi mais candidature indépendante yi lañ ko doon laaj. parti politique boo koy sos dafa am looy def loo xamante ni association boo koy teg ñun la charte bii la ak bii déjà am na ay nit yoo xamante ni ñoo composé parti boobu lii ñu ñuy laaj ci sosinu parti politique am na ci ba pare léegi bu ñu demee ba jub ay élection moom mu def référendum moom Macky Sall référendum bi mu wax ci lépp loo xam ni moddu élection la loolu waratuñu ko laal 2016 bii rek la ko waxoon bu ñu demee nag ba ci digg bi moom mi nga xamante ni moo indiwoon woon référendum boobu ñu voteel ko yooyu coppite mu ñëw teggi ko ñu dem ba jub à di mois des élections mu bëgg a laal mode bi nga xamante ni moom la ñuy demee ci élections yi mooy mi ngi ci li mu nekkoon rek mooy jéem a fexe ba ay kandidaa bañ ci bokk loolu du sama jàngat kese man opposant bi ndax parrainage dafa bëri problème yu mu posé Macky Sall déjà dañ ko jox xam nga tubaab dañu boo mënul ëpp mënoo li gën a tuuti li gën a yées ndax carte d'identité nationale dañ koy jox cinquante deux wala cinquante quatre milliards yoo xam ne Sénégal ko moom pour mu defaral ñu kese ay carte d'identité ci defarum carte d'identité donc fichier yu jaxasoo entre euh, li nga xamante ni mooy fichier nit ki ay information ak photo am donc pour ñu synchroniser ko problème la ba da gis carte nit koo xamante ni góor la ñu defal ko carte boo xamante ni Aminata moo ci nekk wala ngay jigéen ñu defal la loo xam ne Momadou ci nekk ci biir loolu moom laay bëgg a leeral mu am lu tudd les cartes non polariser carte non polarisée boobu moo jur tey boo demee dans le Sénégal ñoom seen bopp yónnee woon nañ ay mission bu ñu demee ba foofu dañuy dem ci carte d'identité joxe woon ñuy xool ndax bu ko dugalee ci machine bi ndax c'est euh, c'est une carte polarisée ou pas bu fekkee c'est pas polarisé mooy yow nekkuloo ci fichier bi looloo gisoon moo indi woon nga gis ci élection législative yi nit yor carte biométrique bu CEDEAO bi dem ba ci. centre de vote am ak bureau de vote am ñu ni ko nekkuloo fi xam nga kon kooku bu ñu ko jëloon ñu dugal ko ci fichier wu parrainage Badara Gadiaga nga bokk réew mi nga ñëw joxe fekk na sa carte baaxul. mais est-ce loolu mën nañ laa euh, éliminer nga may ma tuuti rek. mais mhm. est-ce que du bu ñu xoolee si législative yi. Mhm. ñu dépensé par exemple 17 milliards pour rek mën a organiser defar ay liste mhm. est bu ñu bàyyiwaatoon loolu noonu mu xewaat si présidentielle du ñu. génn waat si suñu kees loolu laay ñëw expliquer la léegi mais dama lay leeralal rek lii pour mu jeex ci carte non polarisée yooyu xam nga tey bu ñu defoon loolu ñu dugal ci carte bu baaxul mën nañ ñu ko imputer beneen bi mooy opposition yi supposons ñu amoon dix candidats de l' opposition ku nekk jox ko soixante dix mille wala soixante huit mille wala soixante cinq mille comme il veut ci présidentielle bi mooy fichier wu li ñu naan secret du vote amatul. ki naroon votel Idrissa Seck ki naroon votel keneen ak keneen candidat PDS wala candidat Khalifa Sall wala keneen ak keneen Macky day am fichier bi ni tiimal ko boppam maanaam moom fichier wu ñuy votel opposition bi la nekk di ñu laaj le parrainage techniquement mënul nekk parce que signature même danga koy def ci banque ñun la signature bi évolué léegi nag lu jëm ci candidat wu yi amoon ci législative xam nga Macky Sall mënul nax nit ñi législative yi liste yi amoon moom le président Macky Sall moo ko créé ndax wax non wax wax day tingoom xam nga opposition war na mën am quatre ba ay cinq pôles yu mag loolu amul problème même dans les grandes démocraties dafay am mais li am Sénégal fii rek lañ ko gisee Serigne Mbacke Ndiaye dégg ngeen ko mu fësal wane ni moom candidature am moom personnellement Macky Sall moo ci jàpp ci élection yi ñu jóge gis ngeen door seen li nga xamante ni génnee na ko comme ojo boo xamante ni destiné na ko ñëpp gis ko ñu ciy dégg candidat boo xamante ni nee na moom Macky Sall moo ñu jox xaalis ni ñu présenté wu leen gis nañu ay candidats yoo xam dañoo ñëwoon ruuxaloo ci eh, opposition bi lu opposition bi wax ñu yàq ko amuñu sax oto bu ñu dawal mais ñooñu état bi moo leen di financé jox leen ñu ñëw nekk candidat donc élection yi ñu génn muy législative yi les candidats des candidats de l'opposition yu bari yooyu ngay gis mm. c'est des candidats fantômes yoo xam ne Macky Sall moo ko créé parce que ci législative yi li ko arrangé woon mooy créer candidature multiple léegi nag présidentielle lañ jëm li ko arrangé mooy mu créer nan lay def ba restreindre les candi les les les yi nga xam ne ñu ngi ciy dem léegi nag loolu moom combat wu opposition bi la te ñu ngi koy mëne man parti bi ma bokk muy parti réew mi ñun loi wu parrainage dañoo gëm ni daf fiy dañ Parce que le président Idrissa Seck a fait une conférence de presse expliquer à aux faces du monde que dafay attaqué décision boobu ci cour justice bi nga xamante ni mooy CEDEAO te jàpp nañ ni dinañ ci am ndam incha allahu rabbi ci loolu nga xamante ni songu nañ. wax nga léegi loi bi mënul jàll nga wax parce que déjà euh, yaakaar naa président Macky Sall léegi moom moo am le dernier parce que moom moo ko war a promulguer Euh, président Idrissa Seck def na benn point de presse wax na da xeex affaire bi CEDEAO tey jii nga yaakaar na lan moo war a nekk beneen taxawaayu opposition bi ngeen mën a contrecarrer loolu noonu. taxawaayu opposition bi déjà mooy li président Idrissa Seck wax opposition bi déjà dañu leen di dañuy féliciter ñëpp parce que félicitations yi ñu ngi koy déparé ci député opposition yi nekk biir assemblée nationale nga xam ni ci wàññi dañ faa tuuti lool waaye keroog bu fekkoon. débat démocratique bi continue na ñu ko foogee on a vu lu mel ne le vice-président Déthié Fall on a vu Madické Niang on a vu Ousmane Sonko ak ñeneen femme bi nekk itali Sénégal yëpp xale yi sax tey dañ ko apprécier dañuy waxtaane ay audio on a vu une opposition déterminée à l'intérieur et à l'extérieur les jeunes des partis politiques les jeunes mouvement société civile bi ñu mel ne ay Abdourahmane Sow ak ñeneen ñoo xam ne il reste d'être société civile bi ñu xamoon ñu nekk di mëne combat bi ak ñun ci mbedd bi ñu nekk ci hémicycle bi nekk di jouer seen rôle kon opposition bi lépp lu ko waroon ci xeex contre loi bi def na ko waaye du fa yam Idrissa Seck le président Idrissa Seck daf ni day dem seeti membre opposition bi yëpp te yónnee na mission suñu directeur des structures ak suñu vice président dem ci ñi nga xamante ni ñooy responsable parti yooyu waxtaan ak ñoom ñenn ñi leer na ma ni sax mi ngi entrer en contact ak ñoom téléphone ndax xam naa sama njiit nu muy doxale donc pour que ñoom ñëpp ñu boolo seeni doole dem attaquer li nga xamante ni mooy décision bii génn ñu attaquer ko CEDEAO mais loolu dañ koy def avec la main droite avec la main gauche aussi nous allons mener le combat ici au Sénégal parce que ñun dañu gëm ni parrainage loi la boo xam ni mënul jàll et mënuñu dem ci ay élections yoo xam ne Macky saal mooy maanaam mooy continuer de mener le combat ci forme yëpp maanaam opposition bi à venir di nga gis ay marche di nga gis ay sitting di nga gis ay combat yoo xamante ni dinañ ko mëne ci terrain politique bi dinañ mëne nag li nga xam ni ci juridiction yi la war a dem parce que xeex dafa bëri ay forme mais xam nga sànq yaa ngi may wax ci wàllu rationalisation rationalisation xam pour xaalis la waaw booy rationaliser Aminata Tall CSE bi mi ngi nii CSE mooy conseil économique et sociale kii jeex na mandaam jeex na lan la fi liggéey lu Sénégalais gis milliards yooyu doo ko rationaliser def ko ci jàng mi nga xam ni ñi ngi dóor démb benn xale Cees ba bëgg koo rey ñu gis enseignants yi presque ay weer a ngi nii jànguñu te ni ko président Idriss Seck waxee ingrédient bi gën a am solo ci njàng mooy motiver enseignants yi parce que am réew bu bëggee développer suba ñu ni Sénégal pétrole am na fi gaz am na fi mais li nga xamante ni tey mooy permettre pétrole ak gaz ak yooyu noonu ressource naturelles ñu am mooy doomu Sénégal yi jàng formé wu am xam-xam mën a euh, développer seen réew bokk ci concert des nations ci concert des nations boobu ñu war a bokk nag bu dee Sénégal tey quantum horaire bu dee neuf cent heures wala huit cent heures xale yi mënatuñoo def sax trois cent heures par année ngay jël ay Euh, institution yu budget d'Ivoire yoo xam ni jàpp naa ne xëy na bu mel ne Tanor Dieng moom comme jaay na ko parteem xëy na du ci du ko defal yenn yi mais ku mel ne Aminata Tall bi nga xam ni sax xanaa jeex na dana ko arrêté foofu jël ay mesures buy rationaliser foofu lañ ko wax mu rationaliser ko moom Macky Sall. ñu génn si euh, si wàllu parrainage si question boobu comme déjà jot nañ si xuus lu bëree bëri temps yi ñu gis ne defoon nga benn sorti sortie président Idrissa sec nga defoon benn séminaire Saly nga def benn sortie boo xam ne c'était un peu en déphasage lan moo waraloon loolu noonu déjà. waaw xam nga déjà ñun suñu parti dañu wax justice honneur liberté suñu parti le président Idrissa Seck daf ñu jàngal ni ñun neneen parti yi di ñuy doxee ak suñu parti bokkul. suñu parti bu fekkee ci biir même fonctionnement bi à am na yoo d'accordul mën ngaa jóg ni lii ak lii d'accorduma ci nii ak nii laa ko gisee loolu laa jël position ci loo xam ne am na ci partie bi te jàpp naa ni à l'interne ñu ngi toog di ci waxtaan bu fekkoon dem na ba toll ci blocage foo xam ni gëm naa ni amul solution dinaa génnaat ngeen gis ma ma jël ci position mais ñi ngi ciy waxtaan ñu ngi apporter ay ay ay ay ay waxtaan suñu biir pour apporter yenn solution yi bu fekkoon am na blocage boo xam ne jar na ñu génnee ko ci biti rek incha allahu rabbi maa ngi njëkk ni waa Dakar midi wala ñeneen ñoo xamante ni maa ngi jokkoo ak ñoom ci communication ma jël ci position comme ni ma ko jëlee woon. réew mi lan moo nekk problème au sein réew mi. réew mi y' a aucun problème yu bëri des fois dañuy xaw am ay désaccords yu bëri waaw xam nga la politique au Sénégal moo demee noonu mooy que ni ci biir parti politique yi am na ñoo xamante ni dañ jàppe njiit yi comme ay buur. dañuy nekk ay fans dañuy bëgg kilifa gi ba ñoom fi ñuy toll ci kilifa gi ci mbëggeel boo ko tuddee rek ñu yaakaar ni sax je veux yow leneen nga ci jublu bu dee parti opposition dafa egg ba ci boo tuddee kilifa gi dañuy yaakaar ni baadu sawaay dañ koy waaj jënd wala day waaja dem fekk na yooyu yëpp du loolu démocratie interne dafa war a am ci parti comme ñun nag ñooy ndaw ñi nga xamante ni ñun politique autrement lañ ko bëgg a defee neneen nu bees lañ ko bëgg defee te ñu bëgg suñu biir parti mooy njëkk am démocratie balaa ñuy songi même état. léegi tey jii euh, nga yaakaar ne président Idrissa Seck moom nekkoon na temps yii passé dans l'ombre ñu gisaat ne fan yi am na benn regain d'activité bu ñu ko mënee waxee noonu jógaat na benn jog mu génne ko ci manifestation bi est-ce que nekkul la dafa bëgg euh, benn sauvetage comme ni koy waxee. président Idrissa Seck bu nekkee dans l'ombre moom la neex. bu génnee moom la neex je vous explique Idrissa dafa méthodique dafa stratégique dafa toll ci phase boo xam ne rek war naa communiqué wax ak sénégalais mais ñetti at a ngi nii Idrissa Seck mi ngi dans le Sénégal des profondeurs mais ci moom la neex communiqué wu ci woon waxu ci. parce que dafa am travail de terrain travail de fourmi boo xamante ni waroon na ko moom parce que dañ ko tere woon egg ci askan wi ndax xam nañ li fi jaaroon mais moment bi moment déploiement la bu mu nekkoon di def di dem contact direct avec les Sénégalais di def liñ naan séance d'écoute waxtaan ak ñoom déglu leen ci seeni jafe-jafe laaj leen nguuru Macky Sall lan la ci apporter comme solution ñu constater li nga xam ne lu bon li nekk ci monde rural bi moom mu ñëw pour apporter ci ay solution léegi nag phase bi ñu toll dañ toll ci phase boo xamante ni phase communication la boo xamante ni dañuy wane ñaawteef yi fii ñu jëm nii nag à partir de maintenant phase proposition yi ngeen nar a gis moo tax ngeen gis mu woo cadre yi am ay Euh, liggéey yu mu leen commencé jox sànni premier jet wu programme bi nar ko partage ak sénégalais yëpp ku nekk indi ci sa xalaat bu ñu paree loolu ñu wasaare ko ci àdduna mu wër Sénégal ndax gën nañ ni te amuñu ci naatable ni le président Idrissa Seck le 24 février 2019 au premier tour la nar a gagné les élections. Idrissa Seck ak opposition bi temps yeeg gis nañ ne Ousmane Sonko mu ngi koy contrecarré tamit est-ce que Idy dina am benn genre consensus wala moom mu mën a opposition bi ñu ko pour que mu opposition bi porté ko ñun sax bëgguñu ko li ñu bëgg mooy mu am ay pôle yu mag ñun wax nañ ko ba tàyyi ci opposition parce que élection présidentielle du intelligence aussi opposition yëpp booloo def benn candidat que suñu frère Ousmane Sonko ak keneen wax xalaatam ci lu Idrissa xalaat ñun nous sommes des démocrates réew mi li ñu Idrissa njëkk a jàngal mooy justice honneur liberté maanaam ci teggin lépp loo xalaat jàpp ni nag c'est constructif day defar war nga indi sa apport li ñuy wax Ousmane Sonko rek mooy lépp lu muy wax ci opposition bi na nekk loo xam ni day jariñ opposition bi day defar day fédéré loolu rek lañ koy ñaan. Zahidi Sassak lan la nar a andi ren di par exemple ñu des ci candidature ba léegi wala ci côté boobu lan la nar a andi lu bees loo xam ne dina mën na yéem Sénégalais yi pour que ñu mën ko porter à la tête du Sénégal parce que day yombul euh, opposant bu ko mënee waxee noonu nga mën a convaincre la population. waaw xam nga président Idriss Seck dafa am programme boo xam ne war na ko proposer Sénégalais yi tey man nag bu fekkee dama ñëw par exemple li ñuy waxtaanee potum biir nga xam ne dafa war a def présentation jàkkaarloog àdduna yëpp wan leen ni leen fii laa bëgg a yóbbu Sénégal ma génnee ko donte am na yu bëri yu ma ci xam parce que bokk naa ci ñiy nekk di liggéey ci parti bi dana dana doon vendre li tubaab naan vendre la mèche te du ma ko mën mais ci yi mu jot a wax rek ma fàttali ko. mooy bëgg na justice amaat Sénégal Sénégal fi ñu toll nii ci olof li ñuy wax sostiis moo fi am sostiis mooy fekk gor gu deful dara nga sosal ko dara tiiñal ko nga jàpp ko tëj ko mooy comme li ñu def xalifa Ababacar Sall ni ko yow de yaa jël fii un milliard huit cent ñëw ni ko fay ñu cinq millions xam nga loolu dafa ñaaw président Idriss egg na ci ni magistrat yi ñoom seen biir war nañ di leen àtte war nañ di leen gis war nañ di xool ñoom it nu ñuy doxale mu mu proposer foofu parce que dëkk ci justice lay tàmbalee que moom dafay génn au conseil supérieur de la magistrature bu boobu jeexee dégg nga li mu proposé ci jàng mi ni jàng mi da ko bëgg a yóbbu gradu institution maanaam mu nekk institution boo xam ni recteur d'université ba gën a am xam-xam directeur bi nga xam ni moo gën a doon directeur bu baax ci école enseignant yi gën a génn nekk nangam mu créer loolu benn conseil supérieur de l'éducation boo xam ni ñooñu dinañ mën a décider ci njàng mi noonu la ame ci mbay mi noonu la amee ci yeneen plan yoo xam ni président Idriss ci xarañam ak ci xaralaam di ngeen ko gis balaa yàgg dara mu ñëw présenter leen ko de la plus belle des manières sénégalais yi comprendre ko. lii problème bi moom mooy que. amaat nañu confiance wala yéen lan ngeen di def pour que sénégalais amaat confiance pour mën a porter les Sacek à du Sénégal. xam nga loo nga loolu moo tax nit adhésion ngay wax par rapport ak à programme au leader mu doon suñu candidat j'ai compris la question da nekkul suñu biir. gis nga boo nekkoon suñu biir xam nga léegi nii sama portable bi dañu mujj fay ko pour ñu mën a def émission pour mu bañ di déranger di sone tey boo dee responsable réew mi li nekk di ñëw si réew mi. ci li nëbbu ak lu feeñ li nekk même ci pouvoiru Macky Sall di waxtaan ak ñun di ñu xamal ni kii dafa nar a yàq réew mi ñun mënaguñoo fés waaye fii novembre ak décembre dinañ ñu dégg di ñu dooleel di ñu jàppale di liggéey ak ñun ci suuf kenn mënu laa wax fu mu toll donc tey sénégalais yi ñoo xam ni le président Idrissa Seck mooy le président du vrai changement te loolu tey yéen mën ngeen ci am loo xamante ni doo leen ko yëg waaye incha allahu rabbi au lan jouru élection yi buñ ca eggee ak jàmm di ngeen xam ni le président Idrissa Seck euh, deuxième tour sax gawma mu egg fa ak président Macky Sall premier tour la ko nar gañ léegi par rapport ak Idrissa Seck stratégie bi mu adopté léegi pour dem présidentielle est-ce que nekkul ne loo xam ne day xaw a copier la la stratégie du président Macky Sall en 2012. Idrissa wër le Sénégal di installer le PDS avec le grand maître Abdoulaye Wade boobu Macky Sall deful politique bi ñuy installer PDS moom mag yi muy ñëw di fekk ci Idrissa mu naan ko lettre de mission tel ay tel tâche laa la dénk defal ma ko mu nekk koo xamante ni moo ko doon jox li ñu naan orientation politique kooku bi muy xam politique di dem ci Sénégalais yi di déployer wu di créer marche bleue kooku Macky Sall xamuloon lan mooy dem ci Sénégalais yi président Idriss sec chaque année ak lu bees li muy indi dinaa leen jox exclusivité dans les jours à venir di ngeen dégg li mu lancé le système le concept dëkkandoo la lancé parce que 2000 marche bleue moo amoon mais bii li mu bëgg a lancé ak sénégalais bi mooy concept dëkkandoo mooy kër par kër la ñu nar a fekk sénégalais bi waxtaan ak moom muy le président Idriss Seck wala ndawu réew mi ñu waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo war a mën a accompagner le candidat du peuple qui est le président Idrissa Seck. Euh, Badara Gadiaga ñu xam ne présidentielle wala campagne électorale déjà euh, wala pour nga mën rek di dem ci askan wi ci politique laaj na ay moyens yu bëree bëri président sa Seck amoon na fi ay jafe-jafe ñu tuumaaloon ko ci yenn yeeg ak yeneen mbir yi tey nga yaakaar ne bu denkaatoon di defaat campagne di at jël yenn moyens yi duñ ko dugalaat ci côté boobu noonu. non duñ ko dugal foofu parce que le candidat du parti euh, dafa am lu support bu mu am. dafa am ay instance yu nekk ci parti bi yoo xamante ni lépp lu jëm ci caution wu candidat bi ak lépp loo xam ni war nañ ko àndandoo liggéey ko ñun ñoo ci jàpp jàppale ci candidat bi candidat bi aussi indi ci loxoom je t'explique par exemple ñun tey au niveau départemental de Dakar Mbacké Seck bu wootee réunion ñu toogandoo di waxtaan ak yeneen responsable yi nga xam ne ay cadre lañ ak ay responsable yoo xam ne ñu ngi ci des responsables communaux dañuy ñëw indi ci suñu loxo suñu poche ku ci nekk pour organiser wu département de Dakar nan lay doxee président Idrissa Seck du ci génnee dërëmam ñun ñooy defar suñuy pancarte ñun ñooy defar suñuy banderole ñun ñooy defar suñuy t-shirt ñun ñooy wut suñu siège ñun ñooy wut suñu organisation interne nuñ koy gérer parce que président Idrissa Seck dafa toll foo xam ne ci yaakaar tey nit ñi ñooy ñëw pare pour jàpp ci mais du Idrissa mooy génnee xaalisu boppam di ko ci def léegi yegsi nañu si cappaandawu émission yi xanaa ñu bàyyi la rek nga wax sa kàddu gu mujj. kàddu bu mujj mooy di remercier Dakar Midi di di gis liggéey bu am solo bi ngeen di def. di sant di gërëm sénégalais yëpp di leen wax ni moom Macky Sall euh, lim ñuy teg metti na li ñuy dund moom metti na waaye incha allahu rabbi li xale bi wax keroog nee na Macky Sall dina am deuxième mandat waaye deuxième mandat bi mooy mandat de dépôt bi muy am. incha allahu rabbi bu leen dara metti le 24 février 2019 bu deuxième tour dee am sax Macky Sall du ci bokk Idriss Seck lay nekk ak beneen candidat wu opposition. mu nekkoon euh, seen émission jotaay politique tey ñu doon dalal kii di Badara Gadiaga nekk responsable réew mi au niveau de Dakar nekk tamit responsable des jeunesses réewistes ñu leen di jox euh, dig daje seen beneen émission jotaay politique euh, sur dakarmidi point net.